أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوكي جولي ني نيغي لين دي نويو دي لين سانت دي لين زيارة دي لين جاجيفال بو باخ دي لين دلالات سي سين شين بيغا خامني موم موي تيوان 24 تي في تبارك الله نجين اند اك تاي سين ايميسيون ييغا خامني نيون كوي ngir waajal guddik sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni moy khairul anbiya wal mursalin di waajal bés ba nga xamni it mom la ko cheikhul haj malik si lon ni ala azimu leylal wiladati hisbatan iza lam yakun na'wal harami xudulun ni diko ko tabarakallah kom niñ koy defé sa su nek tay nak ñu éviter ben jambar bo xamni jambar la ci diine ji di jeune waye di jambar tamit ci lépp lo xamni rek lu am solo la jëm ci walu xam xam-xam ci walu jàng ak ci walu jàngale mu ci def liggey bu am am solo tay nak ñu dalal ko ngir fasiyene sekk ak mom waxtaan bu am am solo la talo rek dañ koy bàyyi mu dal di nuyoog mbokk internet yi baan aouzu billahi samina alim min alcheytaani allahin irrajim bismillahi arrahmani irrahim allahuma iftah lana futuha alaarifina bi xikmatik wansur alayya rahmatik وعلمني ما جهلت واذكرني ما نسيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بحرمة صلاة الفاتحة والصلاة والسلام على رسول الله بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام جناب سنت يالا سنت سنت سنو نياري ويجر فتوارك الله جل كي سنو سنغي سيدنا محمد فتوارك الله نيو نيو تلسفكتاتير ينغا خمانتين نيو نيو سيغر شين شين بو مكبي آه؟ ما شاء الله دي تي 24 ñu nuyu leen ziar leen ak téléspectatrices yépp nga xam ni macha allah ñu ngi suivre chaîne bi mom muy sunu mbokk talibé di suñu frère fa tawarakallah di def liggéey bu am am solo ci hadara Cheikh Sidil Hadji malik fa tawarakallah di ko def ci li nga xamni moy mooy diine ji di jeune macha allah yàlla yàlla taxaw ko tay nak comme ni nga waxé ñu tew fi ci ben hëdëf hëdëf bi moy fa tawarakallah bayit bi mu wax sank rek Cheikh Sidil Hadji malik jambar ji nga xamni fa tawarakallah fi ba kérok ñuy wal bëfte gi képp ko xamni ne na rek ak fo meunte gàmmoo ci fi jamii anha il aalam yàlla dina sàkk ca sa gàmm googu ay yiw versé ko ci compte Cheikh Seydi Hadji Malick ndax moom mooy initié li nga xam ne moom mooy gàmmu ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxarami udul wa tabaraka allahu tey nag waxtaan wi xam naa macha allah dina dina dina tàng dina neex macha allah xaaj macha allah am na solo nuyoo bi am na solo tabaraka allahu dañuy tàmbalee rek ci borom guddi gi nga xamni ni wa mawliduhu bihi sharafun wa khairun fa fi taazimihi inja sujuni lol di kàddu yo xamni suñu mam Cheikh alhaji Malik simom moko wax ci ku tedd kooku di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam yaa nak tay dama lay lacc kan moy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam sallallahu alayhi wasallam sallam ashraful jumlatan haj laaj nga ma ci koo xamante laaj nga ma koo xamante ni nii huwa qurratu uyunina laaj nga ma koo xamante ni fa tabaraka allahu huwa alladi yuxyi xulubuna huwa alladi imlaat xulubuna bi nuuril iman huwa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sallam huwa alladi arsala huwa alladi arsala waaw moom la yàlla yónni fan la ko yàlla yónni fi jamii al xalaiq moom la yàlla yónni ci mbindeef yëpp moom sayduna muhammad nga xam ni sa waa ji nga ma laaj moom laataa muy ñëw àdduna dafa lëndëmoon xaj. waaw Seydina Muhammad bi muy ñëw ci àdduna boobu àdduna dafa lëndëm. ku ëpp sa morom du moroom na koy rey duma ko. ah fa tabaarakallaahu ceddo ji bëri fi. naan sàngara bi bëri fi. Ah, mooy yàlla gi bëri fi. Eh, jaamu xërëm gi bëri fi. keroog bi sa waa ji gane àdduna. Seydina Muhammad ci la yàlla leeralee li nga xamante ni moom mooy. àdduna. nga xam ni keroog bi mu ganee àdduna. la ca xew bëri na fa tabaarakallaahu yàlla di wax ak Seyduna Muhammad mais ni muy waxtaan ak moom da ngay yëg ni yàlla nda li mu préparé ngir leeral àdduna mi ngi ko dëxañ ci biir Seyduna Muhammad ndax bu yàlla yónni woon yónniwul woon Seyduna Muhammad kon àdduna bi mën na ni du am sirr uh-huh. waaw boo déggee yenn waykat naa ko huwa sirru sirrullaahi sirru wujudihi uh-huh. waaw huwa sirru هو سر الله سر وجوده مم ينتبه مم سر بينا خامنتني بقى يلا واتيولن شعبنا دردو دخ فتبارك الله يلا لقد من الله على المؤمنين إزبع عصفهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سنو مام سخصر حاجم عليك نحن آيب وابو دفتي جانل لبري نحن بودم يتي تربية maam Cheikh Seydi Hadji Malick balaa mu lay defal tarbiya daf lay defal tazkiya uh-huh. te loolu mi ngi ko jëlee ci alquranul karim uh-huh. yàlla moo ne ngeen def ngeen sellal nit ñi ba pare dool leen a yar Maodo daf lay sellal ba pare uh-huh. fexe ba noot sa bakkan ba lépp luy shahawaatu nafsiya nga génn ci doo def dara loo xamante ni daf lay yóbbu ci bàkkaar ko defee nag mu door la jàngal door la yar moo tax moo tax wa xaarabta iblisa laayna wa xisbahum waaw loolu la ko doomam jox fa tabaarakallahu alaaji Mansuur it waxaat ko ni ko ruddat nufusata diinallahi tarbiyatan iblisa mabtasamat minhul makaidu fa mhm. tabarakallahu moom Cheikh Sidi Hadji Malick nekk koo xam ne nag moom moo ñu nàmpatal ci ci ci sayyiduna Muhammad na sallallahu alayhi wa sallam mhm. waaw ndax tiwaawan mhm. boo xoolee eh, nga waxtaan ci yonent bi sax ngay a jekku nga waxtaan ci Cheikh Sidi Hadji Malick nga waxtaanee rasulillahi moom nga gën a jekku nga waxtaanee Serigne Babacar si nga waxtaanee rasulillahi <clears throat> moom nga gën a jekku nga waxtaanee alxaaji Mansour bal xaw mi nga waxtaanee rasulillahi yi nga gën a jekku nga waxtaanee ki nga xamante ne moom mooy Mawlaaya Abdul Ahad Oustaz ak ak li nga xam ni moom la maam Cheikh Alxaaji Malick si liggéey mm-hmm. Sëriñ Babacar si radiallahu anhu liggéey ko ak njaboot Seydi Alxaaji Malick gi mm-hmm. lan moo waral mm-hmm. maam Cheikh Alxaaji Malick si waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a yomb ci Tiwaawan nga waxtaane maam Cheikh Alxaaji Malick si parce que Maodo daf ñu woo ba maanaam dafa woon nit ñi ful bi la woo bu bënu ñëw mhm. il yëg amu war ñu boppam bu ko neexoon war ñu boppam mhm. mais daf ñu nëbb boppam joxoon ñu fële ni ñu ni ni ni ñu unzuru huna mhm. waaw hunaaka hunaaka boo fa demee ni nga fa fekk yàlla joxo ñaan ñu faneen ni ñu bu ngeen demee fee ni ngeen fa fekk sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la Seex Seydi Haaji Maalik def moo tax ci boo fi juddoo rek jàngee fi yaroo fi màggee fi doo xam kenn ku dul Seydina Muhammad kon maam Cheikh Alhaaj Malick daf ñu nëbb boppam waaye wan yonent bi looloo tax wa nasabta fi arasatiha qiyama diya mhm. inna al gawamida malabu sibiyan mhm. waaw Serigne Babacar Sy nee na ko yow li yeneen li yeneen eh, maanaam li li yenn borom xam-xam yi di dëggal mhm. ca fa ñu dëkk mhm. boo diggee fii tiwaawan borom jagartaa yi koy fooy ci borom jagartaa boo fi ëpp ni ko yóbbu ma koñ sànkam ci diggante bi trajet bi mhm. boo ne boo ko laajee ci Seydunaa Muhammad mu wax ne leer ga ba ci bin koy dugal bin koy dugal ci bàmmeel wallaahi ndeysaan waaw loolu loolu loolu yàllaa ko dogal tiwaawan loolu tax ñu daan ko ñu doon wax maam Cheikh Hadj Malick majhulul umma majhulul umma léegi maam Cheikh Hadj Malick nag loolu mu am ci sallallahu alayhi wa sallam lan nga jàpp ni lan moo ko may loolu mu am ci sayyidina Muhammad xam nga mahabbatuhu yumnun mhm. waaw wa am nun mhm. xam nga bëgg Seydina Muhammad rek kooku kooku mhm. kooku jàpp jàppandal la jàppandal waaw moom sëy lépp day yomb te fa fi taazimi nag im jaax sujud waaw bëgg Seydina Muhammad ak di màggal guddi gi mu judd xam xam nga Maodo da dafa def lu rëy waaw wax dëgg yàlla te wolof day faral di wax naan ku def dégg mais ku deful nag doo dégg dëgg yàlla waaw bu nu waxee gàmm ki tax ñuy wax gàmm fii ci senegal mooy Cheikh Seydil Hadji Malick ndax moo njëkk a gàmm uh-huh. te bi muy gàmm moom ak maam rawxaan fa tabaarakallaahu uh-huh. seen kaamil la daan jël uh-huh. Cheikh Seydil Hadji Malick jël xaajo kaw bi maam rawxaan jël xaaju suuf bi ñu jàng ko jeex boobu ay ginaar ak ay xarak yooyu noonu yépp daan ñu ko ci woon sax def ngir def ko hëddiyee rasulillahi ngir màggal guddi gi mu ab àdduna ndax aaj guddi gi moo màgg guddi gee màgg taramat li shayaatiini surtout ni ci guddi googu la amee salil asnaama hël nu kisat bi ragmin guddi googu la amee zawul awsaani fii diinin wa diinin guddi googu la amee tabaarakallah li maa fii jawfiha inshaau shaarun guddi googu la amee tabaarakallah waaw mais yooyu noonu yëpp ci guddi googu la xewee. Mhm. ci guddi gi rasulillahi gane àdduna te avant yonente bi de gane àdduna am na loo xam ne moo njëkkee xew sax amaam yi gane àdduna mhm. guddi gi leer gi jógee ci maam Abdullahi ñëw ci maam Amina mais am na lu xew foofu mhm. fi may dugg rek mooy euh, ñu gis ni saay bu nu jubee guddi gu tedd gi di gàmm dinañu gis ñenn ñi di génn di jam li nga xam ni moom la fi maam Cheikh Al Hadj si bàyyi woon muy gàmm bëgg koo def biddaa teg ko ci xadis yéen bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy iyyaakum euh, wax ci ni euh, bëri na yoo xam ne dañ koy sos te biddaa la waaye wa kullu biddaatin dalaala wa kullu dalaalatin finnaar ñu bëgg jël na gàmm gi nga xam ni moom la maam Cheikh Al Hadj si sos bëgg koo dugal ci biir ci biir ci biir ci biir xadis boobu ñooñu nga xam ne yoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxal naka nga gisee loolu. xam nga ñoom fa tabaarakallaahu euh, moom daanaka am na ñoo xamante ni ton tontu leen sax yàq énergie la. Mhm. wante fa tabaarakallaahu am na loo xam ne tamit ku koy wax. Mhm. dañuy jàpp ni ñàkk a xam moo tax nga koy xam nga. Mhm. hunaaka. bidaatu sayiaat. wa bidaatul xasanaat. dafa am lu ñu tuddee ay bidaa yoo xamante ni dafa rafet. ak ay bidaa yoo xamante ni dafa ñaaw baa yëg nga ni mushaful bidaa la. waaw. Mhm. dajale kaamil. Mhm. kaamil nii kaamil yi ñuy jàng yi ngay mhm. seen nii bidaa la ndax ci ginnaaw yi parce que bidaa al bidaa mooy lépp loo xamante ne yaxdisu baada rasul sallallahu alayhi wa sallam waaw maanaam sos nañ ko ginnaaw bi sayduna muhammad génnee àdduna loolooy bidaa loolooy bidaa nag lu mu mënti doon rek lépp lu ñu sos ci ginnaawam bidaa la mais nag dañuy taxaw ci bidaa googu xool ndax lu rafet la wala loo xamante ni ñaaw na parce que bi ñuy dajale Seydina yonente bi bi muy génn àdduna bàyyi fi kaamil bu ñuy jàng baqarat ali imran maida ni déedéet amu fi mais aboubacar siddiq moom mo ñëw commencé lolu jamul quran fi mushaf wahid ba ci fi ahdi ali ibn abi talib kaamil bi door mo seuk sëg tabarakallah mais lolu bi daala mais lolu mëno wax ni lolu dafa haram foo koy teg am déet Mhm. mais ki ñëw di màggal guddi gi Seydoune nga xam ne loolu ñépp a ko màggal mhm. rab rab yi dañ ko doon màggal rab yi rab yi mhm. guddi gi Seydouna Muhammad gane àdduna gaynde yi gaynde yi bëy àll yi bu ñu gisee gaynde yi dañuy daw gaynde yi woo leen ñu leen tey amul daw tey gën gi mbindeef moo gane àdduna jën yi ci biir géej gi jën yi doon war na seen moroomi jën yi bi ñu bi bi ñu bi ñu gisee yeneen moroomi jën yi yu mag yi di daw dañ leen woo ñu leen tey amul daw sayyiduna Muhammad gane si na àdduna wa naadiati tuyuru kadal wuxuus uh-huh. li xam naa ni yakunu ridal xatiin nga xam ni kon kooku kooku ku mais kooku ñëpp a ko màggal malaaka yi dañ ko doon màggal sayyiduna Muhammad xaalal malaa'iku abwaaba sama futixat kadal jinaan wa nuuru shamsi fil wadam allahu akbar kooku ñu koy màggal uh-huh. guddi gi nga xamante ni loolu ñëpp a ko màggal uh-huh. ah, al malaaka yi luñ def ba màggal rabi àll yi di ko màggal jinne yi sax màggal nañ nit ñew diko magal nga ni loolu dafa haram mais foo koy teg tabarakallah day na waar euh, wax ji sax likoy koy moy euh, li yonent bi alayhi salaatu ni kep ko man sanna sunnatan hasanan falahu ajruhu ajru man amila bi mhm. da fay dëggal li nga wax ndax yonent bi mënul euh, jug ni lépp lu sos bi daala ba pare wat ni ku sos lu rafet yon ba ñel nako waye ñel na ñi nga xamni dañ ko roy ci mom diko def mhm. kon loolu rek moy deugal li nga wax ni Euh, biddaa bu rafet dafa am waaye am na biddaa boo xamante ni ba du bu rafet boobu mooy bi nga xam ni dafa xaram léegi nag tabaarakallahu maam Cheikh Seydil Hadj Malick Sy nekk koo xam ni tey jii bu ñuy gàmm bu ñu waxee gàmm rek xel yi ci moom lay dem yaakaar naa ni dugg nga ci léegi sax mooy euh, gàmm bu ñu demee ba mu tas ci biir réew mi ku nekk di gàmm Euh, ñu dem ba léegi coow li sax bari ci gàmmu ndax ku nekk léegi dem nañ ba gis njariñ li taxoon maam Cheikh Al Hadj Malick sos ko waaye ku nekk bëgg koo xëcc jëmale sa côté léegi yow loolu noonu ban jàngat nga ci am. loolu moom sant yàlla laa ci wax sant yàlla. Mhm. parce que wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu mhm. euh, ku ñuy toppandoo say mbir rek. Mhm. daanaka la nga nekk moo baax. la nga nekk jag. ndax yaakaar naa ne fa tabaarakallaahu lu bon kenn du ko copier. kenn du ko xëccoo tamit yonent bi ñëpp ko bokk. ñëpp a ko bokk ku mu neex gàmmal. Mm-hmm. waaw ku mu neex gàmmal. Mm-hmm. ku mu neex fa tabaarakallaahu taggal Seydina Muhammad. mais waa Tiwaawan kese moom ñu yonent bi. mais waa Tiwaawan yàllaa leen jox cër ci Seydina Muhammad. Mm-hmm. loolu faa ñu nangu ko. macha allah cër dafa am cër. yàlla ci boppam mooy maanaam moom mooy cërali nit. te yàlla dafa cërélé xeetu sayyiduna muhammad muhammad moo tax mu laqad mën na laaw laam gi laamu xasam la lamu khasam foko ko dégg maam day wat la waat naa ci sama magay man yàlla waaw la laqad mën na laaw gi khaduk tahqiq la day deugal xat dafa am xadug taxqiq am taqrib am taqlil am taksiir xat gi xadug taxqiq la تبارك الله dëggal yàlla ne la xat man na laahu ca dëgg-dëgg man yàlla maa xéewale mbindeef yi lan nga leen xéewale mhm. mu ni isbaasa ba ma nammi yónni mhm. incha allah ba ma nammi yónni kan la nar a kan la na ma yónni mu ni Seydina Muhammad mu jël ko xam ci yéen la bok min anfusikum ku bok ci yéen ko xamni yatlu alayhim da leni jàngal lu leni jàngal ayati sama aya wayu zakihim mu leni jàngal nu ñuy selle mota il faut nga sel bo nekké talib cheikh il faut nga sel di julli waxtu di jàpp ba sel fa tabarakallah fu la fekk nga yor japp wayu zakihim bo paré nag wayu yuallimuhumul kitab waaw ab julli dafa wara jàng tabarakallah waaw dafa wara jàng te yooyu yëpp sax sa xaaji Maalik def nañu ko ñu ñun wax deug yàlla radiyallahu anhu ba jàng jotee uh-huh. dem nañu jàngi uh-huh. fa tabaarakallaahu uh-huh. ba seetlu jotee tamit ñi ngi ciy góorgóorlu di ci def lu ñu mën kon kooku bu demee ba instauré gàmm fii keroog maa lay dégg ngay wax wax bu am solo nga ne foo mënti dem ci àdduna même boo demoon Chine ñuy làkk ay chinois déggoo chinois déggoo ci dara ñuy wax turu gàmm sa xel fi muy njëkk a daj balaa daj fenn mooy Tiwaawan mais dëgg la dëgg la wallaahi ndeysaan mais dëgg la. Mhm. Seydil Hadji Malick ko a ngi gàmm nag. ñëpp a ngi gàmm. Mhm. mais gàmm buñ ko waxee wax dëgg yàlla na ñu jëlal cër bi jox ko ki ko yàlla jox. tabarakallah xam bàyyi nga ni nangu li yàlla dogal ci jaamu yàlla la bokk. Mhm. da di ku tekki bëri nday rek comme ni koy waxee. waaw waaw waaw. ndax ba mu koy sos am na ñoo xam ni. non sotti am borom. tabarakallah lu sotti am borom. waaye loolu moom sant yàlla la nañ ñëpp gàmm. waaw parce ki ki ki nga xamante ni moo ko instauré bi mu koy instauré mais loolu la ci bëggoon mhm, parce que yiw la fa fi tanzimi in jaa sujud mhm. waaw moom fajog aajo baa yëg nga ni weer wii ñu ne ku la raw ci la la mhm. weeru gàmm gi wallahi la azim waaw parce que euh, euh, euh, abwaab a samaa futixat jamiul abwaab yakunu fii malay ala yaftaxuun tabaarakallah buntu yëpp tijjeeku nañ fi ne nii aljana fi ne loo ñaan amul protocole day àgg الله أكبر. بس كبروا وير موني تولو حد كي كي كي لكير خمولم دون سيدنا محمد كين كين هو مركز الفهوم والمعان. huwa nurul akwaanil mutakawwina al aadami yi saawi xaqi rabbaan moom rasulillahi kon teraanga yi nit ñi di jël di ko jox gan yi nga xam ne dañoo ñëw ngir guddi gi yonent bi loolu yëpp du yàq déedéet loolu mm. mënul nekk yàq parce que mm. gan yooyu ay ganu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu boo leen terale xoola man karamal karimu lil karimi mm. karamatan yukarrimuhu l karimu lima karamatal karimi karamatan <laughs> tabaarakallah ah, teraanga te teraanga wax dëgg <laughs> yàlla uh-huh. teraanga boo ko joxee ña ko yelloo wàcc nga kon tabaar kon dañu jugee dëkk ba dëkk ñëw. pour kan Seydina Muhammad ñooñu boo leen teralee teral nga ña jara teral tabaarakallah macha allah oustaz am na solo kontaan nañ bu baax a baax mm-hmm. ci waxtaan bi mënoon naa gën a gudd sax macha allah mais beneen yoon incha allah lay gën a am solo incha allah euh, oustaz euh, ginnaaw bu nu waxtaanee ak njariñ ji nga xam ne sotti nga ko fii yëpp tabaarakallah wax ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci maam Cheikh Al Hadj Malick si radiyallahu anhu léegi dañuy du dama lay laaj benn jàngat rek ban jàngat nga am ci ki nga xam ni tey ji euh, ci këram la ñuy defee lii euh, ñu gis ko njàmbaarte gi mu am ci kër Cheikh Seydil xaaj Malick si waaye ak li nga xam ni da koy def chaque année ci bu ñu duggee ci weeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ay teranga loolu ban jàngat nga ci am oustaz ñu tëjee ko fa tabaaraka allahu euh, yàlla dafa wax ci alquran yi wa amma man aata wa taqa wa sa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra waaw xam nga fa tabaarakallaahu eh, borom bi subhaanahu wa taala dafa bëgg kuy joxe uh-huh. ci yoonu yàlla nag uh-huh. waaw kuy joxe ci yoonu yàlla uh-huh. te moom bu ñu gisee fa tabaarakallaahu ni mu koy defee Tiwaawan la koy defee Tuubaa ah dëgg yàlla te wamaa shahidnaa nag illaa bi ma alim naa nit ki mënul seede lenn loo xamante ni gisu ko tegu ci bëtam mais teraanga yi nga xamante ni moom lay def di ko jëmale ci kër diine di ko def ci diine ji loolu mën mënul naax saay xaaj. Uh-huh. waaw mënul naax saay ndax wax dëgg yàlla wo waxuma la dara sax mais nga togg benn cin waxuma la sax mbana. Uh-huh. benn cin bu ndaw rek nga sóob ca benn ginaar ba mu ñor. Uh-huh. nga woo ay nit yoo xamante ni yitte woon nañ ko nga jox leen ko ñu lekkoon ko la ca nekk ci yow kenn xamul nu mu toll. tabaarakallah waaw. allah la ca nekk ci yiw rek kenn kenn kenn xamul na nga xamante ni noonu la toll kon fa tabaarakallaahu Abdou Aziz Ndiaye ñu koy ñaanal yàlla. yàlla yàlla. dëgëral ko lépp lu mu mën rek yàlla na ko yàlla di ko yokk ndax wax dëgg yàlla uh-huh. ñu jara ñaanal lañ ndax am na ñu mel ni moom ci réew mi uh-huh. yor li mu yor te defuñu li muy def wax dëgg yàlla tabaarakallaahu kon moom bu demee ba am xol boobu noonu ak yéene boobu ci uh-huh. kër maamam Cheikh Sidi Hadji Malick kër maamam Seydi Aboubacar Sy du ñu def lu dul ñaan ko yàlla yàlla yokk ko te sàmm ko ci barke yonent yàlla sallallahu alayhi wa wax ji am na solo allah amna ñu mbekté contentement bu baax ci disponibilité bek déplacement bi ñew jukki fi lu am solo li nga xamni ni nga ñu wat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatali ñu goor gi nga xamni ni ko xamé mom motax muy mam Cheikh Seydil Hadji malik si kaddu gu mujjigi tabarak allah kaddu gu mujjigi tago bu lay doon rek ñu leni fatali ni len fa allah gaaw len ngeen tegu ci yoon bi mhm. deggmal si fi nga xamni moy ci waaw ndax yooni <coughs> yoon yi mi ngi commencé xat ngeen baal ma yoon yi mi ngi commencé xat uh-huh. ndax fa tabaarakallaahu dañ koo namoon na xaaj dañ koo namoon dañ koo namoon yar yaram yi dafa dafa moon gàmmu waaw mhm. dafa maroon tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defi ni nit ñaa ngi jóge fépp ci gox yi ci adduna bi di dëgmal si fi nga xam ne mooy Tiwaawan ngir fekke si li nga xamante ndax deux ans ni mu mel fa tabaarakallaahu ni mu mel ci xolu Sénégal yi mhm. Seydina Muhammad rek mhm. kon gaaw leen ñëw ñuy tagg yonente bi bu ngeen di ngeen fi fekk nuuniya di ngeen fi fekk ni ngeen fi fekk xilaasu zahab xilaas moom càppaacu la càppaacu la gi mooy gàmm gu amul xilaas moom mi ngi mel ni ngénte lu amul laax <laughs> sama genre moom duñ ca sawar a ah, macha allah tabarkaal kon mi ngi noonu <laughs> ah, macha allah oustaz kontaan nañ bu baax a baax a baax ñoo ngi leen di gërëm di leen jaajëfal bu baax comme ni mu ko waxee léegi rek euh, ñoo ngi defee émission bi fii ci kër Abdoul Aziz Aly Ndiaye bi nga xam ni moo nekk fii ci Tiwaawan bu Cheikh Seydil Hadji malik si mu nekk jàmbaar ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick si am taxawaay ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick Sy nekk koo xam ni këru diine yëpp nag la yemale ndax bi màggal jotee gis nañu mu fa def noonu la koy defee Medina bàyyi di ko defee noonu Canaba waaye nag ba fii ci dëkku maamam maam Cheikh Seydil Hadji Malick si ndax Seydil Hadji Malick si maamam la te lii muy def nag nekkul loo xam ni dafa xëy xëy def ko ndax bërki dem bu toog naag way juram mu ni ca maamam alima jigéen moo daan jiital fukki nag di ko indil Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu 74 nag moom mu awu loolu ci baayam alima jigéen di indi fukki nag waaye bi mu demee ba xam ni moom it jot na am ku ko aw mu daal di jox abdul Aziz Lengue yi Abdoul Aziz Alé Ndiaye di def teraanga yu bari ci keur Cheikh Seydil Hadji malik si sam sa yu gam dëg dëgmalee waaye yemul ci gam kesse ndax gam rek lañu gis waye leneen lu xewit dañ ci gis abdul Aziz ala ndjay mu di ci def lu am am solo ba ci aja yep ma sha allah ñu diko ñaanal yalla yalla yalla dolli ko xewal yalla yalla doli dolli ko teranga yalla yalla sutural ko yalla yalla yala ko yalla yalla sam ko ak mbollem njabot geek mbollem julit ni ñu ngi am mbégte ak contentement bu baax di leen jox dig daje benen yoon ci benen émission alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh